na dafa amoon doom ju jigéen bi doom ji matee sëy mu maye ko yàlla def xale ba ëmb bi mu demee ba ci juróom-ñeenti weeram am bés mu nekk ak yaayam ba ñu añee ba sottal yaay ji woo nag ñetti moroomam mu daldi ne moroom yi dama bëggoon ngeen àndal mag sama doom ji nekk ci mat yóbbu ko mu doxantu ndax yaramam bi nàyyi moroom yi daldi ànd ak xale bi doxantu ji ba ci takku dex ga taxanaale fa ba ñu taxanee bay ñibbi ñu ñëw ba ci taatu daqaar gi yennee ko fa di naan ci dex gi mat wi daldi jàpp foofu xale bi mënatul a def dara mu tëdd ci taatu daqaar gi ñi mu àndaloon ne ko xaaral ñu daw ca dëkk ba woowi sa yaay bi àndandoo ya demee xale bi des fa moom dong ak jaljaleem jine ji dëkkoon ci daqaar gi daldi génn fekk ko ci taatu daqaar gi moom rekk mu daldi ko ba mu wasin daldi ko jël mook liir ba yóbbu leen ci biir garab gi bi àndandooy xale bi wootee jee ba dellusi gisatuñu kenn ci taatu garab gi ñu ko bàyyi woon bi ñu wutee ba tàyyi gisuñu kenn ñu yaakaar ne rabu àll dafa lekk xale ba booba xale ba ngi ci kër jinne ja jinne ji ngénte na ko santale liir bi santam xale bi toog na fa lu tollu ñetti weer kër jinne ji bés bu ne jinne ji dina dem ca dëkk ba seet lu xew kër yaayu xale bi xamal ko ko benn bés mu ñëw ne xale bi yërëm naa sa yaay ndax bi ma la jëlee ba léegi guddeeg bëccëg mu ngi jooy dinaa la bàyyi nga ñibbi ngir moom bi mu ko waajalee wutal ko yére ak wurus yu bare daldi woo doomam yépp ñu teewe mu ni xale bi man Maymuna laa tudd sant Jóob duma sa yaay waaye mel na ni maa la jur ndax dëkk bi nga nekkoon maa di seen rabu tuur maa yilif mbooleem ñi dëkk ci daqaar gi dina la booleeg suma doom yii ñu gunge la ba sa kër yaay noonu mu jekki ba guddi daldi koy génne dellu woo jinne yépp ñu teewe mu dindi benn nombo jox ko wax ko xam-xam nombo gi teg ca ne joxuma la fas gi yow sa bopp sa doom laa ko jox su ko takkee dina yàgg ci àddina boo demee seen dëkk ngala kenn dindi sant wii ma la jox te boo demee seen dëkk na nga fexe dëkk ci yàgg sa yaay ak sa jëkk ci taatu dex gi dëkk bi ngeen nekkoon dinañu toxu ci fekk si leen boo defee lii ma la wax sa doom cosaanam ak lu bokk ci ngiiram ñoo di moom dëkk bi bi xale bi ñibbee fexe ba toxu ca taatu dex gi waa dëkk ba wàcc si ci taatu dex gi fekk si leen doomu xale bi nekk buuru dëkk bu bees bi bi mu màggee